jërëjëf mbokki amee internet yi ñuy suivre sur Zarak Vision mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen bëggee di leen kontaane mbokk yi comme ni ñu koy defee ak yéen saa su ne tey nag mbokk yi ñu seet si koo xam ne boo gisee lii rek da ngay xam ne macha allah jamono ji mi ngi ci ay guddeem jamono ji xale yi topp nañ ko jamono ji am na lu ko wuy si muy Bébé Elton muy sunu waay du sunu lépp nag ñu contacté ko ñëw seet ko tey ba a waxtaan ak moom ci xew gi mu xew ba a waxtaan ak moom ci làmbam ba a waxtaan ak moom ci innovation yi Bébé Elton indi gis ngeen indi na fi peel bi indi na fi waayam bu neex ñii ñi ngi naan wayu indolo ñii wooyu indien la dinañ ci ñëw waxtaan ci ak moom dama koy nuyu di ko baay mu nuyoog mbokki ami internet bi Bébé maa ngi lay nuyu di la bëgg di la siyaar waaw doom day maa lay fay onze billah bismillah inna waliyallah jërëjëf Serigne Touba jaaraama Cheikh Modou Kara waa di ñaanal waa di ñaanal way dawlu yi na leen yàlla yërëm xaaral leen àjjana di nuyu sama yaay bu baax di ko ñaan ko ñaanal yàlla na yàlla def ba bu fekkee sama njëriñ di sant sama nawle bi Jon Kara waaw moom ñoo jàngandoo bëre ñoo doon ànd di ko ñaanal tey yàlla na ko yàlla may ndam ak Maguette Seck boo ñaan numéro 2 yàlla na leen yàlla may ndam ci doole Cheikh Ibra i nuyu fii ma fii ma ñëw ni marché Xelcom damaa ñëw boo yëpp bëgg ma waaw di sant sama waykat bi yuusu sama coiffeur bi ñoom Mar Pro gars yëpp maa leen di sant laay Frank aw ma seen fay di sant waa Gunaas gi ma jugee waaw di sant ñoom Aliou Ngom ñoom Fouta gars yëpp ñoom a Soul Ama Gaye waa Lagros maa leen di nuyu di leen sant parce que léegi bébé Elton partout dans le monde la ñëpp koy bëggee maa ngi nuyu sama fans yi nekk diaspora bi aw ma seen fay waaw. macha allah bébé Elton ñëw ci làmb ba mu nekkee ci làmb yàgg na yàggul mais bébé Elton fan yi ñu gis nii dafa am bayre la xaw ma nuñ koy mën a woowee mu wuy si ko ñëpp topp ko lan la. waaw mais sant yàlla nekk ci li ma nekkoon. parce que man ku ne xam na ni man lu ma am ci làmb du sens mérite la dama gëm suma bopp di entraîner nekk ci li ma war a nekk waaw làmb dama ko bëgg lu ma ci am du sens mérite la di nuyu suma idole nag Modou Lo mooy suma idole man ku ma rusuta jàppale rusuma laa sant rusuma ànd ak yow noos day am garante Balla Gaye dee sunu mag sunu tëdd fil ku bëgg lamb làmb géejuwaay moom moo tax mu bëgg ko ñu ngi koy ñaanal ci doole Cheikh Ibra combat bi yàlla na ko yàlla may ndam voilà. mais sa diggante ak Modou Lo lan la avant làmb la wala jamono yi nga xewee la. non avant làmb la. parce que Modou dafa def lu rëy. mooy lan dama am ku ne xam na ni mbër yu ndaw yi amuñu jàppale. ma jël sama béy dugal ko TikTok yaa may dégg jël suma mu dugal ko TikTok mu vi affaire bi. gis ko yónnee ma un million vie un million yónnee jënd jënd jënd ma cinq bolok barki Serigne Saliou Mbacké moo tax ma farak moom parcelle la dëkk ma dëkk Guédiawaye kaay waaw sama artiste bàyyi nii sama waykat bi waaw kenn du moom Youssou waaw ma la man nag ku ma rusuta jàppale rusuma laat man ak yow. ñu gis ne far bi nga far ak moom dafa mel ne dafa xaw indi polémique. non du indi polémique parce que fii ku am nag sa kër bàyyi nga koy man damaa gëm sama bopp. yaa ma dégg li keneen am yéene naa ko mais lu bébé Elton am da liggéey il faut que ngeen yéene nit day nangu dogalu yàlla voilà chaque année phénomène bu bees génn yàlla ma boole xale yi ak mag ñi ak baay mënuma ci dara. parce que nit da ngay doon bàyyi faal wàcce sa bop man damaa wàcce sama bopp aw ma problème ak kenn su ma yoree su ma alal ku ma mën a dimbali dama koy dimbali donte yoruma dara kon loolu la ma xale yi toppee mm. ma ji sant yàlla bu baax mm. di sant Mansour Ba nag aw ma fayam mm. waaw di sant euh, képp kuy bégee Modou Lo képp kuy supporter Modou Lo ak képp kuy bégee Modou Lo maa lay sant di la gërëm Modou loo dafa defa geste bu rafet. macha allah nee na ma sama combat royal bi. da nga ciy bëre. loolu dafa naaj. barki Serigne Saliou démb la ma Papa Sow woo. ni ma xoolal koo bëgg a bëreel. xoolal koo bëgg a bëreel xoolal loolu mu koy def. te dëkk parcelle. kon kii rusuma ànd ak moom fenn. man maa ngi ci ginnaaw Modou Lo. Mm. barki Serigne Saliou Mbacke. géejewaay laa dëkk. Mm. ñi fi ne nangul naa leen liñ doon. Mm. mais Modou Lo moo ma def ni ma ko li tax ma def ko nii. man dëgg laay ànd ñëpp. du ma raay raay man maa yor kàddu géejewaay fii lu ñuy ragal a wax géejewaay man maa ci duut baaraam. man. barke Serigne Saliou Mbacké autorité am na benn autorité bugguma tudd tur boo nangu woon a bañ a jàppale booy man maa ci génn addu mu jàppale booy ba ma ci addoo wax booy ba ma ci addoo wax dafa bàyyi li mu doon def lépp commencé jàppale booy man aw ma lu dul waa géejawaay deretu géejawaay mooy daw sama yaram sama dara sama deret tuuru moo ma gënal drapeau géejawaay wadd barke Serigne Saliou Mbacké waaw di sant sénégalais yëpp aw ma seen fay. mais am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne Bébé Elton dafa war a bàyyi mbëri mi saaga ndax moom dafa war a respecté mbëri ñuy wax loolu. ñëpp laa jox respect. mais làmb slogan la. da ngay indi sa slogan bopp bul toppandoo kenn. toppandoo ma kenn dama dóor démig si mu daanu ba wan na président bi nar a faatu yàllaaw. looloo tax ma génne borom peel bi ñëw na dina fi rey ay mbër. sama artiste bii moo ko way yaa may dégg mais booy phénomène lañ ko def xama bun bun ci boo yokkee saaga bi xama mag ñi dañ koy seetaan xale yi dañ koy seetaan parce que Bébé Elton léegi ñëpp koy consommé voilà mais ñu ngi xool nu mu naasee ñu defee ko noonu waaw ah, parce que ñun sénégalais lan fi nekkal ah. te mooy loolu dafa yàlla lu tax nit di ñu gis di nu bëgg waaw ñu ciy sant yàlla bu baax di wax képp kuy bégee borom peel bu ndaw bi aw ma sa fay yéen sama supporter yéen a nar tax ma door fi mbër ba mu dee ah. jël sama peel bu mag beeg bu ndaw bi wax ba mu xóot suul ko macha allah waaw ah. mais ba nga jógee ci dóor mu daanu ba léegi gis nañ ni invité nañ ay plateau nga bokk ay mbër mais boobu ba léegi bébé duñ déggaatuñ combat wax nga léegi exclusivité nee nga da ngay ñëw ci combat royal bi da nga ciy bëre ak kan la parce que euh, parce que non du ma tudd tur mais ah, mais xam nga adversaire non man bi ma bëree ba tey. samay moroom. am na ñu bëri ñoo xam bëgg bëgg na noo bëreeg man. mais garab ci kaw lay fekkente say morom yëpp mënoo leen jeexal. man 4 mètres 50 laay mesuré. sama loxo bi 3 mètres 95. man namp 9 ans. waxuma la 9 mois 9 ans laa namp. juddu 2012. yaa ngi may dégg lii sama objectif la. dinaa fi dóor mbër mu dee. di dundee looy dundee.

ku ne xam na ni man sama biir bi dafa xóot neuf mètres la xóot ci biir largeur biir bi quatre mètres quarante damay jënd spaghetti quatorze mille cinq cent pomme de terre frite onze mille pomme de terre baxal onze mille neuf omelettes douze nenu baxal mayonnaise deux mille cinq cent ñaari bitéelu ketchup lii laay consommé du ma ci may yuusu moom mi ma may xaalis bi sax su fekkee cere moo ma neex dinaa jënd cere quatorze mille cinq cent suukar fukki dërëm meew genn waa du ma may nit su fekkee hamburger dinaa jënd 17 hamburger ñaari biteelu boisson du ma may nit lii laay consommer moo tax ma ëpp mbër yi doole ëpp la doole yombul na yow gis la amul graisse sans eau sans sama waa ji kenn jam naane wooy Elton kenn du la jam naa ni waaw ni wooy Elton foo yendu ma yendu fa yendoo naa ne wooy Elton ama wooy spaghetti huit mille yaa moom lii le douze omelettes yaa moom lile mayonnaise deux mille cinq cent yaa moom lile set nenu baxal yaa moom lile deet ni wooy el to gis ngeen mo ma yend fa yendo da boy nan wooy el to fu ma yendu nga yendu fa yendoo daane sama papa Youssou Ndour woy bi dama ko modifié man dama fees delek talent su ma woyee nga ni mën naa woy non dama bëgg mu recevoir ma mooy loolu eh eh def leen waaw bëgg mu recevoir ma parce que woyam bi dama ko modifié voilà waaw mais fi lamb tollu géejawaay ñu gis nag géejawaay eh, eh, def leen la géejawaay jamono yi lamb yeewoon na fi muy ci bébé Elton muy ci xale yi nga xam ne ñoo nekk école de lutte Balla te gis nañ ñi ngi jëm ci ay combat Balla Gaye 2 mu ngi jëm ci combat dimanche bi di ñëw man maa ko yóbbu man maa yóbbu Balla Gaye 2 Tapha Tine la am de dama ni man maa yóbbu Balla Gaye 2 abal ko sama ñaari peel yi Tapha Tine amul doole mënul bëre xamul tous. Tapha Tine suma engagement la Balla Gaye moo aay ci luur te incha allah lim liggéey gis naa ko liggéey na liggéey bu intense am na doole macha allah waa Géejawaay ñëpp a ngi ci ginnaaw incha allah ci kàttanu yàlla bis bi dina ko duma dina ko daal. Tafaatine ba Balla Gaye daanoon Bébé Elton nag est-ce moo nekk nii. Tafaatine musul changé. am na doole de. dama ni musul changé. te nee na day fàtt fépp. dama ni Tafaatine musul changé macha allah. dafa am taay gudd gudd rëy moom ci moom la fekk lu baax. mais loolu yamul teg dara ay bëreeg yooyu. Tapha Tine bu meloon ni mu war a mel kenn du ko daan ci làmb. te man amel na ma revanche. képp ku daan Elton sama tooma revanche bi maa koy fay. mais moom waxoon na day ñibbi si fan la ñibbi sa tooma tooma sama tooma mi ngi foofu. ok mi ngi mi ngi dund àjjanaam. nee naa ko toogal foofu sa petit bébé Elton mën naa def lépp. képp ku la daan ci làmb dinaa ko yoot ba fekk ko fi mu ne konko jël jël sama pel bu ndaw bi suul ko barki yàlla. mais Bébé Elton na fi mu toll gars yi ne non Bébé Elton instant bi en ce moment jigéen ñi dañ koy wër. gars ñu ngi wax loolu est que loolu man déggoo li ma bi ma bëree ba tey man sama yaay laa bëgg sama yaay tant que aw ma kër gu ma ko dugal waxaguma waxi jabar defaguma dara parce que sama bulli bi. sama bulli bi li ma ci fay dafa seer. exclusivité bu bees sàq laa la jox ah. ama gars yi dañuy man lépp lu may wax damay créer sama bulli bi li ma ci fay dafa seer onze mille neuf cent quatre-vingt-quinze laa ci fay du ma ci may nit sama bulli bi waaw sama bulli bi xam nga li ma bëgg a wax sama bulli bi bulli gars yi bëgg na xam li non dama ni man sama bulli bi lii internet yi may dégg xam nan ko sama bulli bi incha allah du ma ci may nit bi ma daanee ba tey boo yaa ngi neexal naan bébé Elton bébé Elton may ma ci bulli bi may ma ci bulli bi eh Youssou waaw may ma ci bulli bi may ma ci bulli bi man nag mayew ma sarxew ma parce que waa adduna ñoo ma yaakaar booy xool leen keneen ku ngeen bëgganteel bébé Elton bëggantewul yaayam la bëgg di ngeen ma yemaleeg seen suufu dox parce que sama bulli bi du ma ci may nit onze mille neuf cent quatre-vingt-quinze laa ci fay ba ma daanee ba tey boo yaa ngi pronosé naan bébé Elton petit Elton grand Elton di neexal mayuma ci nit. mais dégg naa jamono yee gars yi bëggoon nañ leen jàpp ci affaire parank yeeg yooyu de. non man kenn du ma jàpp. Ah? man. Ah. yow man xanaa xamoon man damaa sangu rek mais nelaw ma de. maa ngi mbëri bokkuñu vision bokkuñu gis-gis bokkuñu doxalin. bokkuñu jëf-jëf. boo ma gisee may dem mën ngaa yaakaar ne kii. du waaj mais buñ toogee waxtan di nga xamni ku am ful la ngay waxal ku diñ ci bopam ma lay wax lu graw nit bu ci dignité deñee ci mom dara desatul man chaque jour damay sam sama dignité sama ngor waaw ku ne xamna ni man man man awma ay problème yi problème yi mbeur yam man li moma sonal sama bir suma ma ba sour nan ba mandi ambiance la dundu ak jam ak salam sama non, sax lay gëna taf sama wet man moo tax aw ma noonu kenn kenn bañu ma ñëppoo ma bëgg parce que dama wàcce sama bopp parce que li yàlla bind mi ngi ci doomu aadama yi ku santul doomu aadama doo sant yàlla voilà parce que fii lu fu waay yor am na ku ko ëppale kon nan wàcce suñu bopp jéem a nekk Baay Faal safoog ñëpp foo waxtaan ak ñëpp kaf ak ñëpp foog ñëpp rek waaw. fi làmb toll en ce moment Bébé Elton nag léegi moom ku tudd mbëri da ngay tudd. te bu ñuy dogal war nañu xalaat ni Bébé Elton mu ngi ci mbëri fi làmb toll gars yi wàcce nañ heure làmb ji léegi làmb 19 heures. mais loolu moo ci gën man lii laa bëgg sama gars yi déglu leen waaye eh. man lii laa bëgg parce que làmb dafa war a jeex ma sangu ba set ñëw seetaan seetaan làmb ji man heure bi waa CNG mention spéciale dogal buñ mës a jël bii moo ma ci dàqal. bii nii barki Serigne Saliou Mbacke. mais xalaat nga Balla Gaye Tapha Tine. non dama ni dama ni gars yi bu yemalewul mbër yëpp dañuy juum. te man sama làmmiñ laa wax yor. waaw sama làmmiñ laa yor de dëgg amul CNG amul nationalité amul président amul nii dëgg laa fi nekkal. oh oh waaw xamal li ma la. dëgg laa fi nekkal CNG bu ñu defee gis nga danoo def geste bu naas ma apprécier leen bu defee lu dul yoon damay taxaw wax ko parce que man dëgg laa fi nekkee xale laa mais da dëgg laa fi nekkee yaa may dégg mais lii yoon la lii ñu def nii man daf ma neex vraiment parce que mbër mu ndaw booy waaj préparé ànd ak say mbokk combat nga waaj ko 4 mois wala 5 mois yow buñ la soufflé woon léegi sax da ngaa war a bëri barki Serigne man de man bu ma amee combat billahi wallahi taala sama yoon newut man su ma sañoon man maay ubbi baar man xam naa ne daan moom dinaa ko def lu mu métti métti dinaa daan te dama jël sama engagement ci làmb ji ndax dama am cër ci làmb ji barke Serigne Saliou Mbacke ñi lekk million ci làmb ji gënuñu ma. kon lekkul day bëri ay ñoom ñame ñame ñoom. man damay moroomu ñoom. waay bi dëkk yëmbal joo nu mu tudd Ama man damay moroomu ñooñu ñooñu seen xiifaay ñooñu buñ duñ lekk ba suur duñ xiif ba màndi dama ni ñooñu yow yaa leen tudd sax man du ma moroomu ñooñu bi ma daanee proposé nañ ma ay mbër yu mbër kaamil yu mag ma bañ man leen Cheikh Niang tiijaan fay jokel Issa Pouye kon koy combat royal bi senew li ak Cheikh Niang maag Cheikh am naa yaakaar ñu bëri ko bu ruuxul bu deful comme Jokkel Jokkel baa Ndiaye da ko fay ko lu mu fayee ko ci làmb barki Serigne Saliou Mbacké mu dem jël prince ragal ma moo tax mu jël prince ci prix boo xam ne ba mu ko déggee damaa tiit. prix bu baax. barki yàlla lin ko lin ko fay ci bébé Elton man na boobu ñaar. barki Nabil Moustapha mu dem jël ci prix boo xam ne man damaa tiit damaa rus. Elton yaa laal xaalis de. maa ngi sant yàlla ah. maa ngi sant yàlla mais daal li ma la mën a xamal combat royal bu ma ci bëriwul Cheikh Niang Tidiane fay wala Issa Pouye dinaa ko ci bër te incha allah ku ma nar a njëkk a dóor ci stade bi mu dee ci ñetti ñooñ la dun ci génn sama gëm-gëm la. mais lu ne ci loxo maa leen ëpp doole maa leen gën a capable maa leen gën a saf mbër man la réew mi bëgg. sa lu ci ne. lii damaa jël samay engagement nekkul lam daraa ci nekk nekku ci samay engagement laa jël ci làmb. te dootuma te dootuma bëree di deux secondes ci làmb deux secondes. sama combat boo taxawee du mat deux secondes. mais est-ce que du mankaan du ban mankaan man damaa gëm sama bopp damay liggéey matin midi soir. di sant waa Tivaouane Pël aw ma seen fay ñoom Babacar Diallo bu Faas ñoom Gàcc Boulon Mbaytin ñoom ñoo ma encadré boo xoolee bébé Elton mu nga doon gis ak bi bokkul barki Seydina Mohamed fii dinaa fi dóor mbër mu dee loolu suma ma gëm-gëm la. xamal làmb boo dooree mbër mu dee est-ce nga bëree. mais amul problème parce que réew mi bëgg nañ ma ñu xam ne man maa am sama objectif atteindre na sama objectif. boo est-ce que duñ la aj amul bo aj ma. waaw non kenn du ma aj. parce que mbër bu dee. dan noo signé xanaa xamoo làmb ji bu arbitre soufflé boo rayee mbër sax dara du la ci ndax lan barke Serigne Sall boo rayee mbër bu arbitre soufflé ni la pare nga pare naa. su ma la rayee boobu yaay perte. parce que da ngaa jël xaalisu jàmbur pour ñu bëri. mais Bébé Elton est-ce que mënul day ak sens contraire koo xam ne da koy dóor. lamb ji gisuma ku mu fi mën a dóor mu yëngal ma. lool gën a dee mbër yëpp. kaw ba suuf. mais mbër yi dama gis ñu ñeme la ci réseaux sociaux yi ñëpp naan Bébé Elton laa bëgg a bëreel Bébé Elton su ma ko kojee ma ko jàppee. lan booy bëgg buzz ñoo naan kii man du ma ci may kenn buzz. parce que fi ma jaar dafa métti. eh yam la fi ma jaar dafa métti. damaa jaar fu métti sénégalais yi pour ñu xam la da ngay daj coono yu métti mënoo ma ma ma wër sénégalais yëpp ban bëgg ma ma lay may loxo déedéet du ma may kenn loxo du ma bëree ku siiwul du ma bëree ku amul talent. ñuy wax nag naan Bébé Elton su ma la kojee su ma la jàppee doo dërëm nangam nangam. man ku ma ku ma koj man kese maay ànd. Ah. ku ma xool ku ma koj laa. di nga tal leneen lu dul ay bebel Elton da ngay kii ak yooyu man man kese ànd dawma kenn. peel bi da nga ko yóbbaale. barki Serigne Saliou Mbacke waa CNG maa leen di wax lii. lii may wax dama ko gëm. daw ma kenn mais du ma xool du ma daw kenn man kese maay ànd ku juum ba ni ma sa bët bi suufa ngi si bu ma la rayee yaay perte man lii laa am ci lu may avertir maa ngi koy avertir président Diomaye fay maa ngi koy avertir euh, avertir euh, président Bira Sène man ndaw laa damay entraîner képp ku ma bëgg a ñàkkal fayda bu ma la rayee yaay perte lay jëluma benn matuwaay naan ay jëluma ay paaka ak yooyu non man sama loxo bii dama ne kon doo ko yóbbaale man sama moto amul dara loo xam si lu lay gaañ sama man maa la summeeku dóor la ba nga dee hmm? dama koy teel a affectir fii képp ku ma koj loola ci fekk jàppal assumer ses responsabilités yaag say mbok barke alxuraan boobu mu ne ambiance bëgg naa bu fekkee ambiance indi mën nañ ambiance ka foore bu la indi ñëw ka foore mais bu fekkee leneen moo la indi njombe bi boo ñëwee fii nga koy fekk daw ma benn mbër daw ma benn mbër daw ma benn supporter da ngay mën a ñu ànd ci jàmm mënoo ko golo xam boote doom waaw Bébé Elton Guédiawaye la dëkk kaaw la dëggee numéro 2 yàgg na loo ciy wax waaw di ñaan waa Guédiawaye ñu jàppale ko surtout ma autorités yi nekk Sénégal yamatuma Guédiawaye parce que Lac de Guiers fee mu nekk du palaasam boo xoolee man maa ci njëkk def vidéo parce que Lac ku ko xawal xam ko ci ngor ak ci jàmbaar bëgg doomu aadama man fu ma gis danaa ma mbër nga yow boo bëree mbër nga boo bëriwul mbër nga góorgóorlul kon loolu dafa naaj barki Serigne Sall di wax autorité yi nañ ko jàppale fee mu nekk du palaasam la dëggee dafa am famille bu baax jabaram baax macha allah natu nag fu nekk ku nekk lay dal ñu ngi koy ñaanal suñu borom mi ko teg natu bi yàlla na ko gaaw teggi mais autorité yëpp Sénégal président Diomaye fay maa lay lancer message ngir yàlla ak yonent bi sunu mag la dëggee fee mu nekk du palaasam ñu ngi lay ñaan nga addu ci ñu ko. parce que soxla nañ ko suñu biir. macha allah Elton ku ne gis na yaay dafa foor mm-hmm. te bébé Elton lu mu wax ne sama yaay laa bëgg a dimbali sama yaay laa bëgg a teral tey ñii wax bébé Elton négatif bu ko yaayam di dégg lan lay def ci moom. waaw sama yaay nag danoo jaar fu métti mu jàppale ma. taxaw ma bu baax man man man sama yaay nii may waxe yow nii su ma génnee suñ gër hmm, ba ay trois heures du matin quatre heures tant ñëw ma du nelaw te mag la barke yàlla moo tax may lancer message waa senegal nan ma jàppale ma jàppale sama yaay man sama yaay su ma ko dugalee ci rek jeex ay mag yu jigéen laa ay rakk yu jigéen ñu yaakaar ci man kon tey jii xam waa Sénégal war na ma mën a jàppale nan ma jàppale waaw parce que man jàmbaar laa waaw. booy bëree ji mu lay ñaanal dina am loo yëg. waaw. man sama yaay non man sama yaay dafa gérer sama carrière barke alxuraan mënu ma ko sax di ki ak yooyu barke yàlla xol bi moo tooy macha allah bébé Elton day wax ci yaayam ba xolam tooy mais ndaw ak yaayam noon la mën a demee buy wax ci moom faaw xolam tooy parce que li tax ma laaj ko ko mooy fi mu toll ci yaayam parce que chaque jour day wax yaay yaay yaay yaay bébé Elton soxal toone mais da ngay dëgërlu rek ñu continuer émission bi nga wax ñi nga xam ne ñoo ñoo lay seetaan ak ak lu làmp loolu la waaw ñu gën ma jàppale gën ma jàppale bu baax parce que man jàmbaar laa nan ma gën a jàppale ma jàppale suma waajur voilà waaw di di di di di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant waa xel ko waaw sama waykat bi maa ngi koy sant bu baax di sant yaayam seen waa kër kii moo ma woy woyu réew Elton ñëw na dama bëgg sax nga jox ko ñu xaw kii. yëngalal tuuti ñu door a tàggu aw ko booy nekk bëgg yaayam te bu bëggee yaayam fa dañ ko war a wayal dëgg yàlla. ndey ndeyu kenn bàyyi bàyyu ñëpp la ndey daal ndeyu kenn lay Elton. baayi baayu ñëpp la suma yaayi jee suma yaaji gisuma lu ma lay mën a weccee yow mi gaaw ci man yow mi gaaw ci man yaay booy suma galaaj boo bëggee jot sama jikko tuddal sama yaayi duma ko fowee duma ko kafe ma bëgg sama yaay Elton ñëw la la la la la Elton ñëw na Elton la la la la howizam yàlla baxila jawizam yàlla mixila howizam yàlla baxila hatura kura misila owaye ora fiye lazi qalisila bibiba owaye ora fiye lazi qalisila bibiba awlelelele Elton ñawna Elton ñawna Elton ñawna la la la la la yamawo madilawo kay fi ndaw bogesul kamu min dana wet yamawo adira ka waaw waaw boo geesul billahi yaa ma gisoon bëgg laa indi laa bul ñu dewaat ci sama nawle yaa ma woo kay fi ndaw boo geesul borom peel bi ñëw na dina fi ray ay mbër gizabra dal tata kekekees tagi sagi rees borom peel bi ñaw na dina fi ray ay mbër gizabra dal tata kekekees tagi sagi rees Elton dafa génne fecc bu bees man naan Elton dafa génne fecc bu bees muwaale samba nee na duma daw duma ragal duma des gannaaw nooni dimare doxal ñu dem te gumbu ce ce ce ce ce ce cararaw rakin gumbu ce ce ce ce ce ce nee na duma daw duma ragal duma des gannaaw nooni dimare waaw waaw taj taj taj taj noonu la demee Bébé Elton ñu ngi kontaan ci yow di la bëggee di amaan mbégte ci yow bu baax a baax a baax yow sama waay waa di la bëggee bu baax di la wax ku yokkul danga ngaa wàññi te macha allah yaag sa bi yéen a ngi yokk maa ngi sant ñëpp nag di sant suma papa may sa sant yàlla boutique aw ma fayam mi ngi may jàppale bu baax booy yem leen waay may sa sant yàlla boutique maa ngi koy sant bu baax di sant Aale Thiam. Ale Fall waaw sant bokkum borom hôtel Sali doomu nday Modou Lo maa ngi koy sant waaw di sant képp kilifa diine bu may ñaanal di sant Serigne Mor si ñaan borom gàddaay sant ñaari moor yëpp aw ma seen fay sant sama euh, sama sama turandoo yëpp maa leen di sant bébé Elton léegi am naa 17 turandoo di eh eh yam le am naa di 17 turandoo maa ngi sant ñëpp di leen gërëm waaw di sant waa Géejawaay waa rajo bi di ñaanal sama doom day John Kara yàlla na ko yàlla may ndam ñaanal Maguette Seck yàlla na ko yàlla may ndam maa ko yóbbu stade ñaanal Balla Gaye 2 yàlla na ko yàlla may ndam samedi incha allah ñaanal Lac de Guiers fi mu nekk yàlla na ko fa yàlla jëlee parce que soxla nañ ko suñ biir di sant Mouha Ndiaye grand Pelli Tamsir Soxna waaw di sant Babacar bu mu lama di sant Mor Diouf xam Pape Thiaw Pape Ndiol grand Cheikh Ndiaye képp ku naan yokkal ma jaara maa lay sant sama fan si nekk euh, diaspora bi aw ma seen fay parce que bébé Elton léegi international la di sant 100 pour cent bébé Elton international sama groupe man sama groupe groupe fan si club 645 personnes moo jënd ñëpp di bëggee bébé Elton loolu benn mbër mu ko am barke yàlla di ñaan mu yoox maa leen di sant yéen ñëpp ñi fi ne am naa combat jour combat Modou Lo ak Siteu nako ko gars yëpp waaj defar naa 36 peel 36 peel eh, defar naa ko allah signature lay xaar wala bisu làmb ja créé naa lu garaaw barke Serigne Touba muy ci fecc bi muy ci way muy lépp sénégalais yi ñi nga xam ambiance moo moom moom bëgg dinaa leen jox consommer local ban doyal barke Serigne Touba incha allah dinaa ñëw toj stade bi waaw maam Cheikh borom Amérique maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm pa Père Sadibou maa ngi koy sant bu baax di ko Mansour Lo maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant waa Guédiawaye di sant suma papa Lat Diop aw ma fayam aw ma fayam moom ba may jàppale du tey di sant Aziz Ndiaye Baye Ndiaye Massata Ndiak ñëpp maa leen di sant waa Géejawaay ku lim da nga juum di la sant bu baax di la wax yow sa liggéey dafa rafet Sénégal nan jàppale jëmm ji ndaw la mën na li muy def macha allah te barke Serigne bu buñ ko jàppalee mu dem kenn du moom bëgg naa ci ñoo far ndeysaan moom sama waay la moom nit bu baax la nit la boo xam ne mën na bégal nit ñi mën na def loo xam ne nit ñi dañuy wax mën na def loo xam ne coow li dina bari mais Bébé Elton nit bu baax la nit la boo xam ne xol bu rafet boo ko xamul nag. xamoo ko mais boo ko xamee di nga xam ne kii nitu kese la ni mu mel ni noonu la mel li muy def nii nag mook àdduna ñoo ànd li muy def nii mook làmb ñoo ànd parce que lii moom mooy cafka làmb Bébé Elton day bégal doomu aadama yi gis nga fii ñu taxaw kenn amatul foo taxaw boobu ba léegi mi ngi fees dell te lépp nag ngir jëmmam la kon dañ koy jaajëfal di ko kontaane di ko wax bonne continuation moom jàmbaar la sunu waay la bëgg nañ ci moom di ko kontaane joo moo nekkoon ci cadrage bi ñu ngi koy bégge bu